asalaamualeykum wa rahmatullah mbokku jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ndokkeel ñu ngi jox ku nekk wàccuwaayam macha allah fa tabarakallahu tey nag ñu ngi fii Derklé Liberté 6 kër Seyda bu Dame bintu Cheikh Ahmed Dame ibnu Ibrahima Niass ñëw ci ziar su mag ziar soo xamante ne ndogu la ndogu boo xamante ne macha allah at mu jot rek da koy taxawal moom ak daayira Chifaawul Asxam ñu ngi toog nag ak ki nga xamante ni euh, kilifa la mu nekk monsieur le maire Cheikh Gueye nekk maire jëppal Derklé bu ko defee rek dañ koy daal di jox micro bi mu daal di nuyanteeg mbokki jullit yi monsieur le maire asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah taala wa barakatu macha allah ñu ngi lay fay di nuyu ak di ziar mboolem ñi ñuy seetaan mhm. di am mbégte teew fii ak yéen ci bis bu tedd bi ci weer wu tedd bi diwaan bu tëdd bi. macha allah macha allah monsieur le maire tey ñu gis euh, sa taxawaay ci li nga xamante ni muy bés bi nga xam ne muy kër Seyda Seynabou Dame Ibnu Ibrahima Niass mu nekk ndogu loo xam ne comme ni ñu ko waxee rek at bu jot dañ koy taxawal tey nag ñu daal di fiy teew daal di fi dajeeg yow ñu bëggoon laaj ana lan mooy sa teewaay ci bés bu màgg bi nga xamante ni euh, taalibe Mawlana Cheikhul Islam El Hadji Ibrahima Niass bi moo koy def at bu jot. alhamdulilahi rabil alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla ba mu ñu mayee ñu doon jullit may ñu it ñu fekkee weeru koor wi ba di ko woor di ñaan yàlla ba may ñu kàttan ñu koy fekkee ay ati at di ko woor te di ko jàmm te lépp luñ ci jàmm yàlla mu néew mu bari yàlla ko suñu boroom nangu dellu sant yàlla ba mu ñu jagleel soxna su tedd yaa Zeyda bintu El Hadj Cheikh Ibrahima ñas mu nekk suñu dëkkandoo di soxna su am njëriñ ju bari njëriñ ju am diine ju bari yërmande soxna si loo ko gis muy dox rek itte askan wi lay dox moo xam ndaw ñi moo xam xale tànk yi mu ngi leen di jàppale ci seen tàggat mu ngi leen di jàppale ci seen jàng mi ngi leen di jàppale ci seen diine mi ngi leen di jàppale ci dajale askan wi. Mhm. ci jaamu yàlla ci xam ku ñu doon. yaa Zeyda Bintu Ibrahima ñas yàlla moo am fay yàlla ko yàlla fay. waxuma la ndog yi muy def sax at bu nekk ak ndaw ñi nga xam ne daf leen di dajale di leen jàpp di leen gunge di leen def seen jur njaboote leen waaye at mu nekk day amul fii kuréel gu mag mbooleem lu xaddam bu kër Cheikh Maulana Cheikh Ibrahima Niass dañu fi ñëw teew te loolu yëpp yokkute la ma jàpp ni am ko ci gox bi fii ci Cité Marine ci Derklé ci jëppal Derklé sag la pour ñun waaye gàllaaj la pour ñun ndax baatu lislaam ñi fi yëkkati jaamu yàlla li ñu ci yëkkati ni ñuy jàpp dalale askan wi moo xam foo mënti bawoo mhm. di la ta telal di tatagal di la xetali di la yee ci diini bu koor jotee ñu jox la loo xam ne moom ngay dogoo mhm. loolu yiw boobu yàlla na fi sax dëkk waaye mën nañu ko sant gërëm ko tudd ñu sant euh, borom këram mhm. Abdoul Aziz di ku baax moom it ku yaru ku dal ku bëgg nit ku am diine ku am lislaam ku bari yërmande ku bari njariñ lool kon nag wax dëgg yàlla ci sama tur askanu jëppal dërk lépp e ñu ngi yeesalaat seen sant ak ci ngërëm ci soxna si tedd gi yal na yàlla guddal fanam yal na yàlla wéral cëram yal na yàlla àggale ay mbébétam mbébétam mooy mbébétu lislaam moom boo ko fekkee sax bu la waxul fu mu bokk doo xam fu mu bokk ndax ñëpp la yemal jullit bi tiijaan bi murit bi laayeen bi chrétien bi ñëpp la njaboot macha allah yal na yàlla barkeel ko yal na yàlla sàmm ko yéen it yal na yàlla euh, yokk leen seen liggéey bi bu mu bën amiin yaa rabbi macha allah monsieur le maire euh, ñu ngi lay beral cant ak ngërmande ak ngërëm goo xamante ni ñu la koy cëre cërale bu baax a baax di la sant di la gërëm di wax ne mbokk yi lii lañ leen indiloon euh, ci li nga xamante ni mooy ziyaaru Seyda Seynabou Dame ibnu Ibrahima Niass bi nga xamante ni comme ni ñu ko waxee léegi rek at mu jot dañ koy def waaye nes neskis rek ñu indil leen li nga xamante ni mooy jotaay bi nga xam ne Seyda Aïda mu baay Seyda Khady Diaw mu baay Cheikh Abdou Karim Diack Baye Ngom ak Cheikh Fall mu baay ñoom ñoo koy taxawee incha allah ci kanam tuuti monsieur le maire salaamaaleykum wa mbokk yi ñu ngi toog nag ak Cheikh Abdou Aziz Tall mu nekk borom kër ci Seyda Seynabou Dame bintu Cheikh Ahmed Dame euh, mi nga xamante ne moo waral jotaay bi nekk moom itamit kilifa daayira Chifaawul Asxam bu ko defee rek dañ koy daal di jox micro bi moom itamit ñu daal di koy laaj taxawaayam ci bés bu màgg bi le papa ñu ngi lay ziar ñu ngi lay ndokkeel ñas ñu lay jox sa wàccuwaay beneen yoon. salaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ko mbooloo mi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñoo ko di dooree suñu kàddu ci sant yàlla ñoo ko di julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ko di nuyu moo ko ak di ñaanal sunu sëriñ moo ko Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima ñas moo ko ak njabootu Maulana Cheikh Ibrahima bi yëpp moo ko di leen nuyu di leen ndokkeel ci weeru koor wi moo ko di leen ñaanal yàlla moo ko yàlla gën leen a dëgëral moo la ko yokk seen kàttan ak seen mën-mën moo la ko bàyyi fi bàyyi leen fi ba ca kanam a kanam a kanam ñu yàgg taxawee xadara bi moo ko ginnaaw loolu ñuy nuyu moo ko euh, Cheikh Ahmed Tidiane moo ko Cissé moo ko imam Medina Baye moom it di ko nuyu di ko ndokkeel moo la ko ci euh, weeru koor wi ñu nekk mu ko ti di rafetlu tamit mu ko taxawaayam moo ko ci pays ba moo ko ci waxtu yi di nuyu tamit porte parole Medina Baye muy mu ko Cheikh Mahi Cissé mu ko ak njabootu mu ko sëñ Aliou Cissé bi yëpp mu ko ginnaaw loolu tamit ñuy nuyu mu ne ko sunu bunt ci Maulana Cheikh Ibrahima mu ko muy Cheikh Ahmed Dame Ibrahima Niass mu ko di ko ñaanal yàlla mu ko yàlla gën a yokk ay leeram mu ne ko di nuyu tamit eh, ki nga xam ne moo ko mooy xalifaam muy Cheikh Sidi Mouhamadul Habib mu ko ibnu Cheikh Ahmed Dame di ko nuyu di jël nuyoo bi di ko teg ci loxoom mu tasaareel ñu ko bépp njabootu Cheikh Ahmed Dame Ibrahima mu ko di nuyu mbokk taalibe yëpp waaye tamit di beral nuyoo daayira Chifaawul Asxam mu ko mi nga xam ne mu ko ñun ñoo bokk di liggéey mu na ko jëm ci mu ko yàlla ak liggéeyal mu ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak liggéeyal faydu Mawlana Cheikh Ibrahima waaw bisimilah. macha allah papa ñu gis li nga xamante ne nag mooy euh, ziar bi nga xamante ne at mu jot rek daayira Chifaawul Asxam dañ koy taxawee daal di ci ànd ak seen ñaari kilifa Seyda bu dàmm ak yow mi nga xamante ne macha allah yaay suñu papa ñu gis ne ren mooy ñaata édition te yi tamit organiser daanaka yombut woo mbooloo mi wuy si la yi tamit yombul ana lan lan lan moo leen may euh, idée bi le ana lan moo leen may taxawaay bi na mel. waaw dañuy sant yàlla rek ñu ko teye ñu xam ne mu ko lépp mu ko jaglee Mawlana Cheikh Ibrahima rek la mu ko nax ñun lépp lu ñuy def rek mu ko dafay fekk dañ ciy am ndigal ba pare mu ko te defe naa biñ ñu sampee fii ci cité marine Derklé mu ne ko lañu am ndigal mu ne ko ci liggéeyal mu ko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko liggéeyal Cheikh na Ahmed Tidiane Chérif liggéeyal Mawlana Cheikh Ibrahima ma ne ko ci gox bi nga xam ne fii la ñu nekk ma ne ko ñu di fi bay sunu waar ma ne ko di fi jëmmal tamit ma ne ko liggéeyu Maolana Cheikh Ibrahima ma ko te defe naa ci loolu la ñu nekk ma ne ko loolu moo waral rek saa bu weeru koor ñëwee ma ne ko lépp lu ñu mën rek dañ koy def pour layal jaamu yàlla yi ma ne ko ma ne ko partager ak ñoom ma ne ko li nga xam ne ma ne ko moo jëm ci weeru koor wi ma ko def ay ndogu mën ne ko séddale ko jaamu yàlla yi mu ne ko yóbbu ko tamit ci jàkka yi nga xam ne ñoom ñoo ñu wër moo ko defe naa loolu moo ko bii daayira bii sosoo ba léegi moo ko am na ay at ci taxawaay boobu la ñu nekk moo ko ginnaaw loolu tamit mu ko ren mu tombe tamit mu ne ko ak ziar boo xam ne daayira Chifaawul Asxam mu ne ko daan nañ ko def di ko jagleel seen sëriñ mu ne ko muy moo ko Seyda Seyna bu Mbàcc donc ren nag mu tombe ak moo ko ak koor gi léegi ñu boole ko ak ndogu bi moo ko defandoo ko benn comme que dañoo jugee ci Covid te moo ñu tënkoon ñun ñëpp ba programme yu ci bëri mu ne ko ñu xawoon ko isolé léegi looloo tax bi yoon nag ñu boole ñaar yëpp ñoo ko defandoo ko mais lépp rek di ci sant yàlla di ci sant taalibe yi nga xam ne tamit ñoom ñoo am initiative ziar boobu. macha allah macha allah papa tey bu ñu la doon laaj ana kan mooy Seyda bu dàmm lan nga ñu mën a wax ci soxna si nga xamante ni macha allah soldaaru Maulana Cheikhul Islam El Hadji Ibrahima Niass la waaye beneen yoon jàmbaaru diine lislaam la nga nekk borom këram uuf ko uuf njaboot gi topp ci ginnaawam yépp tey lan nga ñu mën a wax ci moom. waaw Fatoumata loolu moom. ko defe naa question bu bu difficile nga ma posé donc ndax Seyda Seynabou man du may bëgg wax ci moom parce que wax ci sa bopp dafay dafay jafe dafay jafe trop nga wax yow ci sa bopp waaye liñ ci mën a wax rek ma ne ko ci ma ne ko lu gàtt rek mooy jàmbaar la ma ne ko jàmbaaru Maulana Cheikh Ibrahima la mu ko te defe naa lépp lu mu yëngatu tamit ma ne ko bàyyi rek lañ ciy gis ndax léppam Maulana Cheikh Ibrahima la mu yëngatoom ak i dalam yëpp moo ko Mawlana Cheikh Ibrahima la te lépp loo xam ne mu ne ko àndul ci bëgg-bëggu pays bi mu ko tey njabootu Mawlana Cheikh Ibrahima yi digle wuñ ko moom nekkul ci loolu donc beneen bi tamit bi nga xam ne ko moom laa mën a seede ci moom mooy ku am fit la waaw loolu moom lu ma lu ma gën a rafetlu ci moom la mu ne ko jàmbaar la te am na fit te lépp lu mu soobu mu ne ko pour dugg ci rek mu ne ko fit la ciy demee te tant que atteindre li nga xam ne moom la bëgg rek moom du wàcc yoon boobu donc mu nekk loo xam ne man ko lu ma gën a marqué la ci moom mooy fit bi daal moom moom mi ngi ci moom waaw loolu moom mooy li nga xam ne moom laa gën a moom a gën a marqué ci moom leneen li ci des yëpp nag moom dafa nekk loo xam ne man damay xaw a nekk ci position boo xam ne du ma ko mën a du ma ko mën a du leen ci mën a laaye biir waaye fit bi moom xam naa ne moom moo ko moom mi moom waaw te defe naa fit fit moom defe naa bu ko nit amee rek ci lu baax nag waaw booy am fit da ngay am fit ci lu baax te defe naa ci yoon boobu la nekk loolu daal moom a gën a yi marqué ci moom. macha allah macha allah lan ngay dénk mbokki taalibe yi rawatina ndaw ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci seen ron euh, ana lan nga leen di dénk loo xamante ne dina leen yokk courage yokk leen ñu gën a góorgóorlu ci kanam surtout ci faydu bi. waaw liñ leen di dénk rek mooy li nga xam ne moom la ñu bàyyi dénk ñun ñëpp mm-hmm. te mooy ñu jëfee charia ak aqiqa mu ko ñaar yooyu rek mooy ñaari tànk yi nga xam ne mu ko moom rek la ñu war di doxee mooy charia ak aqiqa lépp loo xam ne Mawlana Cheikh Ibrahima santaane na ko ñu def ci lépp lu ñu mën mu ne ko ba wàccoo ci ak moom lépp loo xam ne tere na ko te moom lépp lu mu santaane lu mu tere rek dafa fekk dafay dëppoo ak li nga xam ne moom la charia wax donc loolu buñ ci dëppoo rek mu ko defee naa matal nañu lépp donc li ma leen di soññ rek mooy ñu gën bëgg Maulana Cheikh Ibrahima gën a tamit xitmaal Maulana Cheikh Ibrahima moo ko xit ma boobu ci la rawante bi képp ku la gën a mën a xitmaal Maulana Cheikh Ibrahima rek moo moom moo la gën a jariñu ci Maulana Cheikh te tànk yooyu moom laay dénk mu ne ko taalibe yi ndax moom mi nga xam ne moo ko moom moo nekk moo ko ci seen kanam moom loolu rek lay wéyee te lépp loo xam ne moom lay moom lay def rek da ci ñaax taalibe yi mu ne ko pour ñu topp ko ci loolu ñu ci sant yàlla tamit ba nga xamee ne daayira Chifaawul Asxam mu ne ko wuutu nañ ko ci ci tànk yooyu te ñoom it ñu ngi xitmal lu ñu mën Maolana Cheikh Ibrahima te tamit ñu ngi xitmal seen sëriñ tamit muy Seyda Seynabou Dame donc lépp lu mu nekk rek ñoom ñu ngi ci nekk moom mu ne ko ba lépp luñ ciy xaar rek mën na ko yàlla mataleel ñu ko donc sant di leen gërëm bu baax a baax di leen ñaanal yàlla tamit seen seen télé bi ko yàlla yëkkati ko ne ko ci anam yu mu gën a yu mu gën a rafetee ci barke ba yaa rabbi yaa rabbana alamin nga woote nit ñi wuy si la daana ko yombul te tey bi ngeen wootee gis ngeen ne euh, dëkkandoo yi wuy si nañ leen surtout ñi nga xamante ne ñoo nekk si te Mbarine Derklé ana lan ngay wax sa dëkkandoo yi nga xamante ne macha allah tey heure bu yaay booy bi gëstoo daal di koy daal di leen gis ñu koy jàppale surtout ci berneel yi ci togg yeeg ci lépp lan ngay lan ngay wax dëkkandoo yi nekk ci koñ bi ak yenn ngërëm nga leen di beral pour pour pour loo xamante ne da nga leen koy cëraleel pour ñoom. waaw oh, loolu moom dañ ci sawar soxna Fatmata ko nax ak euh, dëkkandoo dafa dafa doy waar te ñun yàlla daf ñu jagleel mu ne ko fii ñu dëkk mu ko ci cité marine Derklé wax dëgg yàlla dëkkuwaay bu rafet lañ ci am ak suñuy dëkkandoo mu ko lépp lu ñu xewle mu ne ko ñoom dañuy ñëw taxawu ci bokk ci ak ñun nekk ak ñun ci. mu ne ko ci préparatif yëpp mu ne ko ba mu jeex wàccoo ak ñun moo ko loolu nag dafa fekk nag moo ko ñun tamit moo ko mu jiitu ci ñoom moo ko ndax lépp loo xam ne xew xewle nañ ko ci cité marine Derklé li ko wër moo ko ñun duñ ci xaar kenn duñu xaar ku ñu yëgal duñu xaar ku ñu yëgalul lépp loo xam ne xam nañu ne diine la lislaam la ñun nga yëgal ñu ko ñàkk ñu ko yëgal ñun buñ ko yëgee dinañ fa dem donc ñun loolu mooy ñun suñu philosophie te defe naa Mawlana Cheikh Ibrahima mu ne ko moom lool la doon jàngale ndax bàyyi xamul woon catholique bi mu ne ko xamul woon kii diine bee la bokk xamul kee tarixa bee la bokk lépp loo xam ne daal yàlla la mu ne ko bàyyi di ko fa gis te ñun nag ci tànk yooyu la ñu nekk moo ko looloo tax Cité Marine Derklé amuñu fi benn problème amuñu fi xaar ma yàlla kenn au contraire tarixa yi fi nekk yëpp dañuy jëfalanteek ñun jëflante bu rafet am na ci sax ñoo xam ne dañuy ànd ak ñun sax Medina Baye waaw te loolu defe naa dëkk bu rafet rek moo ko def moom moo ko waral. Mm-hmm. waaw te mu nekk tamit quartier boo xam ne euh, quartier bu am mbóot la. Mm-hmm. bu am mbóot la te buñ koy wax Maulana Cheikh Ibrahima moo tax ñu koy wax Maulana Cheikh Ibrahima moo tax ñu koy wax ndax sori wu ñu jë jëppal. moo mm-hmm. ko te defe naa waxuma la jëppal rek mais dakaar bi yëpp moo ko defe naa ñu ngi jariñu. ma ko di taataan ci mbóotu Maulana Cheikh Ibrahima. donc à plus forte raison nag nga xam ne dañoo taqaloog. mu ne ko jëppal te ku xam jëppal rek xam ne mu ne ko moo Mawlana Cheikh Ibrahima moo fa nekk donc euh, ñu ngi sant ñëpp di gërëm dëkkandoo yëpp wax dëgg yàlla dëpp ci suba ba léegi ñoom ñëpp ñëw jàpp ci liggéey bi mu ne ko dañoo woor mais ñëpp ñëw jàpp ci liggéey bi ba fii la ñu ndogoo donc loolu defe naa koo dëkkandoowul dëkkuwaay bu rafet boo ko defe naa du ngeen seq loolu donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñoom ñëpp di leen ñaanal yàlla moo ko yàlla def jàmm ci gox bi moo ko def fi sutura moo ko def fi xéewal bu bari ci barke Maulana Cheikh Ibrahima. macha allah papa macha allah jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax a baax di la sant bu baax eh, ci li nga xamante ni mooy temps disponibilité bi ñu may te wax dëgg yàlla gis nañ ne ba ba tey yéen ngi xat nekk ci liggéey bi ñu ngi lay wax jërëjëf di wax asalaamualeykum wa rahmatullah papa jërëjëf macha allah salaamaaleykum. ñu ngi toog ak ñi nga xamante ni ay tuddukatu yàlla lañu ci faydu Maulana Cheikhul Islam El Hadji Ibrahima Ibrahima Niass waaye ñu gën leen a ràññee beneen yoon ah, ci daayira Chifaawul Asxam ci Seyda Seynabou Dam ak i njabootam bu ko defee rek dañuy daal di saafonteeg ah, Cheikh Abdou Karim Diack ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ndokkeel di la jox sa wàccuwaay beneen yoon. waaw kay alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci di bi sallallahu alayhi wa sallam di ndokkeel Cheikh Ahmad Tidiane di sant suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima. di wax jërëjëfe Baye di la ziar yow Zeyda Mata di di ci jiital suñu sëriñ suñu soppe suñu xarit muy Zeyda Zeynabou daam Ibrahima Niass ci teg borom këram muy Cheikh Abdou Aziz Tall ñu lañu ñaanal yàlla fan wu gudd lool ak wér-gu-yaram barki Mawlana Cheikh Ibrahim di ziare waa Sifaaw yëpp macha allah. alhamdulilah Cheikh Abdou Karim Diack euh, jotaay bile nga xamante ni chaque at dañ leen ci ràññee bu baax a baax ngeen koy taxawee ana lan mooy sa relation ak Seyda bu Dame mi nga xamante ni mu xaddamu Mawlana Cheikhul Islam El Hadji Ibrahima Niass la. waaw kay alhamdulilah Zeyda Mata boo ma laajee sama relation ak Zeyda loolu kontaan trop. Zeyda dafa nekk nit koo xamante ni suñu yaay booy la nekk euh, ànd bu yàgg loo xamante ni ba dara du dara ñu ànd moom yàlla boole ñu ak moom ñuy liggéeyal Mawlana Cheikh Ibrahim ci buntam kon loolu sant yàlla la waaw Zeyda suñu daal lu yàgg la macha allah waaw si fa sax moo ñu boole ci loo xamante ni Zeyda ay na mu bàyyi ci buntu Zeyda ay na mu bàyyi ñu boole mag Zeyda boole mag waa daara bi ma def di leen daara ba tey ji ma dem ba bokk ci daara bi. waaw sama relation Zeyda daal yàgg na kër gi sax laay wax yàgg na daal macha allah. allah bu ko defee tamit dañuy daal di bàyyi ki nga xamante ni mooy Seyda Khady Ndiaye mu bàyyi moom i tamit nekk tuddukatu yàlla bi nga xamante ni macha allah kenn dootu ko présenté ti ci fay yaa booy ñu ngi lay ziar ñu ngi lay ndokkeel beneen yoon di la jox sa wàccuwaay alhamdulilah. baad auzu billaahi min sheytaan rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. waaw ñu dellu rek wax asalaamaaleykum wa di la delloo nuyoo bi bu baax Zeyda Matar ak euh, ñi fi toog yëpp di wax ne ziyaara bi yal na yàlla defal ñu ko ay ziyaada bi jaay Mawlana Cheikh Ibrahim Niass allahumma amin yaa yow itamit macha allah ñu yàgg laa gis ci wetu seydaa Seyda Seynabou Dame Ibn Ibrahima Niass yàgg laa gis ci jotaayu tey bi nga xamante ni macha allah yàgg ngeen ko taxawee ana lan mooy taxawaay bi at bu jot. waa sant yàlla rek gërëm Mawlana Cheikh Ibrahim Niass mi nga xam ne moo ñu boole ci buum ak yàlla gi ba kenn ku nekk boo gisee sa moroom yaa ngi koy xoolee maay yow yaay man loolu dañ ciy sant yàlla yàlla nag boole ñoo jëmm ju baax jëmm joo xam ne bim ñuy boole ak moom boo mën naa ne sax tarbiyaagut nga dëkk ci HLM Grand Médine ci lañ ko xamee woon yàlla def jamono di dox ba boole kook sëriñam bu baax bu tedd bi di Abdou Aziz Tall ñu ñëwaat fekkaat ko fii ci néegu sëyam fii euh, defe naa ñun ñoo fi njëkk a géew di ko tuddal yàlla ci ngénte taawam euh, yàlla boole ñoo moom jamono di dox ba tey mu nekk muqaddamu Cheikh Ibrahim Niass nekk yarekat ci pey bi waaye nekk jàmbaarul lislaam nekk jigéen ju mën góor nekk ni ku baax bëggut lu dul Cheikh Ibrahim comme ni ko boroom këram seede lépp loo xam ne rek euh, mbiru baay la ci loolu rekk nga koy gis lu dul mbiru baay rek mënoo ko caa gis. loolu nag moo ñu booleeg ñun moom ndax ñun xamuñ ku dul baay biñ juddoo ba tey yàlla dafa mës a def ñun mësuñu am beneen sëriñ bu dul Cheikh Ibrahim Niass. yàlla boole ñoo moom nag ci loolu. Mm-hmm. wax dëgg yàlla ñu kontaan ci loolu bu baax. Euh, loolu nag mooy law tey ba ziaram bi nga xam ne ñu ngi ko koy defal mhm. yàlla def mu tombeek koor gi di ndogu yi nga xam ne daan na ko def chaque année mu boole ziar beeg ndogu yi mu woo ma wax ma ko ma ne ko incha allahu rabbi dinañ ñëw teew ci bés bi ndax bés bi suñu bés la mhm. lii daal moo ñu booleeg moom bëgg yàlla gum bëgg yàlla ñaar ñi ànd nag bokk bëgg-bëgg defe naa seen ànd dafay yomb lool mhm. lool mhm. loolu nag ginnaaw bu ñu sante yàlla ñu ngi koy gërëmee Maulana Cheikh Ibrahim mhm. ah di gërëm Cheikh na Ahmad Tidiane Sirif radiallahu anhu moom mi nga xam ne eh, tey eh, képp kuy wuyoo ci Tidiane rek muy sa sëriñ sant yàlla bu baax waaye di gërëm suñu xalifa cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahim Niass ak ay toppam yépp ak i rakkam mu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax waaye di gërëm boroom këram nag ku baax soxna Mata damay wax ne feccum liir bu neexee rek nday jaay jàpp ca mbagg ya Zeyda bu bëggee liggéeyal yàlla te jëkkëram àndu ci dana métti lool mm-hmm. waaye nag fekk na fi li ñuy li olof di wax ne woo nga naar ci guuxum soow kon naanandoo bi day yomb ndax Abdou Aziz bàyyi rek la bëgg gisut leneen dundam gépp Cheikh Ibrahim la ko jox kon ku taseek bu taseeg jigéen joo xam ne bàyyi rekk la bëgg ah wax dëgg yàlla loolu day yomb ñu ñëw fekk leen fi nag ñu nekk ñu baax ñu lewet waaye mag yu am yar mag yu teey mag yu dal mag yoo xam ne bëgg nañ doomu aadama mag yoo xamante ne bii lépp lu ñu am jox nañ ko yàlla waaye lépp lu ñu ñàkk itam laaj nañ ko yàlla ah, man nag damay wax ne ñii daal la yonent bi doon ñu sant naan mas man lam yaskuru naas laa yaskuru laa moo nekk suñu diggante ak ñoom ñun daal yàlla nee na ko santul nit yonent bi nee na ku santul nit doo sant yàlla ah te ñun yàlla daf ñu booleek ñoom ñu ñuy defal ay xéewal defe naa sama kàddu gi Abdou Karim jaag mi toog xam na ci dara man yëkkati na caabi oto jox ma man amul lu ma defalul ci àddina te noonu mu ma koy defalee la koy defalee mboolem sikarkat yi kon loolu dañ ciy sant yàlla su ma la mënee gàttalal daal mooy jëmm ju baax ju am diine ju bëgg yàlla yoo xam ne man dama ko nawloo sama rakk la. mais dama ko nawloo maa ko mag mais dama ko nawloo parce que li ma ko nawloo mooy jàmbaaru jigéen la jàmbaar ji nag jàmbaarewu ko ci yeneen bunt yi de mais mu ko jàmbaaree ci diine islaam li Baye Niass euh, waxoon rek ne yéen samay jigéen na ngeen rëj rëjloo jëm ci yàlla moom day defe naa ne dégg na waxi Baye Niass jooju ndax ci loolu rek la nekk euh, yërmande yàlla la ñeel jaam yi yàlla daf ko amal pour mu jóg pour dimbale jaam yi yàlla daf ko amal Zeyda yàlla daf ko sàkk ngir mu jàppale jaam yi gindi leen jëm ci yoonu yàlla kon kooku li ñu koy ñaanal mooy gudd fan gu ànd ak wér wallahi ñun amuñ sikk ne Zeyda bu guddee fan lépp lu bàyyi bëggoon ci taalibe mi moom dina ko matale am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax a baax kon dañ koy ñaanal yàlla may ko gudd fan boole ko borom këram gi ndax nag sëy nag bu manee tey nañuy wax ne grâce Abdou Aziz moo ko jàppale moo ko dooleel moo ko dimbale moo ko taxawu ñun gis nañ ne Zeyda bu amee dara lu xew ci moom ci pays yu baay bii Abdou Aziz lépp lu mu doon def bàyyi na ko soo ñëwee bu ñu la waxul kii mooy jëkkëru Zeyda doo ko xam na yaakaar ne jaamu yàlla bu nekk ci biir mbooloo mi la pour di jàppalanteeg jaam yi loolu nag oyof rek. moo ko moo moo ko waral te gis nga yàlla euh, Zeyda Mata. fi muy dëxëñ ay mbootam. da koy doyadil ba kenn du ko ko fooge. kon nañuy wax ne nañu gindeeku ubbi suñuy gët xool. xam ne nag yàlla moom su naree am na lu muy wone suñu gisee nag xam topp rek jëriñu. sant yàlla bu baax nag. macha allah yaa booy jërëjëf sant nañ la gërëm nañ la bu baax a baax jërëjëf Cheikh Abdou Karim Diack kenn dootul naataable sa taxawaay ci biir daayira Chifaawul Asxam euh, macha allah doom nga ci Seyda Seynabou Dame waaye taalibe nga ci biir kër gi tey ana lan nga ñu mën a wax ci maire bi gis nañ ne sa ànd ak moom yàgg na ana yan qualité nga ñu mën a souligner tey ci Seyda Seynabou Dame. waaw kay di la wax ne Seyda lépp lu ñu mën a wax ci moom mun ñu wax ba génn Zeyda ku baax la. nit ku baax la te wali yàlla xaqan la macha allah nit koo xamante ni dundam gi yëpp Mawlana Cheikh Ibrahim la ko jox mm-hmm. ku mën a jaamu yàlla macha allah ku mën a jaamu yàlla kon ñoo ngi koy ndokkee ci loolu mm-hmm. di ci ndokkeel waa si waa xam yëpp mm-hmm. di ziara beneen yoon suñu soppee suñ xarit muy Cheikh Abdou Aziz man moom sama sama sama sama séddoo la waaw moom Aziz Tall sama séddoo la nit ku baax la nit koo xamante ni daf may jëriñ te ni may jëriñee ñoonu la ñoonu lay jëriñee mboolem tuddukatu yàlla yi nekkul rek man rek lay lay yëkkati alalam di ma defal te dama ko seetlu bu heure bu ma defalee rek maanaam ñi si ñi si topp yëpp dina leen dina leen defal ko loolu sant yàlla yàlla na seen wërsëg yokk barki ma naa Cheikh Ibrahima Niass di la wax ne Zeyda nag jàmbaar la macha allah kon taalibe yi ñi nga xamante ni nangoon ne ay taalibeem la ñun ñëpp la mooy suñu wareef mooy ñu gën a góorgóorlu gën a jàppalante ak moom ci liggéey bi mhm. moom daal lu mu lay meree mhm. mooy nga ñàkk bañ a ñëw wasifa ak ñàkk bañ a teew ci jotaay yàlla yi daal loolu lay mere jàmm yàlla kon nañ gën a góorgóorlu ñuy koy teewal ci malaan wasifa mhm. ak di ñëw ci xadara bi di ko gën a jàppale parce que moom bu la gisee ngay góorgóorlu ci fay rek moom kontaan na moom Zeyda Ndeye Mbaye parce que missionnaire la yàlla comme fee andi pour muy dimbale jàmm yàlla kon ñu nit nañ nangoo di topp. Mm-hmm. waaw te nañ nangoo di sax suñu pays sëriñ. Mm-hmm. waaw nit ko am kóllëre la te nit koo xamante ni bis bu la jàppee moom xamul baay waaw nit ku baax la kon ñoo ngi koy ndokkee ci loolu di wax ne ndog yi nga xamante ni wax dëgg yàlla chaque at koy def mm-hmm. yàlla na yàlla gën koy yokk waa mook borom këram nga xamante ni dinañ ko mu nekk ndog boo xamante day day daj maanaam Dakaaru Njaay gi yëpp yàlla mën na ko yàlla na yàlla def ko parce que lii yàlla rek moo tax ñu koy def parce que am na seen alal ji mënoon nañ def fileen mais ci lu neex yàlla rek lañ koy def macha allah yal na rabbi ñu leen di sant bu baax di leen gërëm macha allah di wax ne incha allahu rabbi nii rek la ñuy continuer ak yéen li nga xamante ni mooy ziyaaru Seyda Seynabou Dame bi fii ci jëppal Derklé macha allah allah fa tabarakallahu ñu ngi toog ak keneen eh, koo xamante ni moom itamit kilifa la eh, ci li nga xam ne mooy bés bu màgg bi le tey nekk ziyaaru Seyda Seynabou bi sëriñ bi ñu ngi lay ziyaar ñu lay ndokkeel di la jox sa wàccuwaay di la bàyyi rek nga daal di présenté wu ak téléspectateurs yi ñuy suivre. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu euh, man la Amidou Koli hmm. doomu chef de quartier bi Ousmane Koli man nag xaritu Abdoul Aziz la xaritu bu yàgg xaritu enfance waaw xam naa tey moom du ma fi nekk di wax fu ñu jaar ak fu ñu jaarul mais daal li ma mën di wax mooy il est rangé ku rangé la ku rangé la ba ci ay bagages am dafa nekk nit ku rangé bu bu muy nekk xale damay njëkkee ci moom balaa maa dem ci soxna si waaw. Cheikh Abdoul Aziz borom këru Seyda Seynabou Dame. voilà moom laay waxal nii. Mhm. waaw dafa nekk xale bu bi nekkee tout tànk mu nekk ku rangé waaw. moo tax bi yàlla defee lu muy def boole ko Zeyda bu daam ñaas si laa ne soxna si si boppam yàlla moo ko séddeeg kii parce que euh, soxna si euh, mbir bu muy nekkee nii dafa waroon soxla ku mel ni moom parce que koo xam ne ni lépp du fàtte dara nag lépp da koy bind muy leer muy dem def na ko si ñun yàlla séddee na ko mu nekk ak soxna si kon may wax foofu ni soxna si si boppam yàlla boole na ko ku baax ku rangé ba finalement côté yooyu du si am problème incha allahu rabbi bu mu ñëwaatee si soxna si sama soxna la mais dëkkaay bi dëkkuwaay bi rafet na lool moom tamit ci wàllu boppam balaa yàlla di ko feeñu ni mu yoree bagage yi nii moom si boppam si jëm boppam day ree rek ñu ko oyofal la di reetaan moo tax yàlla cërale ko cël bi jaarale ko si daam mu jox ko lijaasa bi muy déroulé lii si wàllu si lislaam moo xam social xadi waxoon na ko fi sànq social day dox si social parce que loolu dafa am solo sociale waaw dalay fekk ngay soox mu defar la ngay bëgg a euh, dem jàdd yoon comme ni ko monsieur le maire waxee fii mu anniwaat la cest à loolu mooy lislaam kon si lislaam lay dox ma di profité nag ci occasion bi parce que li muy def nii yàgg na mu ngi koy def te liñ naan luy dëgg rek mooy dem lu dul dëgg tey taxaw ma ko siy ñaanal nag ni muy yéene bu mu am di ko def moo xam parce que si euh, kii bi lañu nekk weeru koor bi euh, ndogu muy invité ndogu bi fii nii waxatuma ay gàmmu ak yeneen yooyu peut-être suñ fa yeggee peut-être dinañ ci wax mais comme que ñu ngi ci ndogu li ndogu li lañuy wax ma di ko ñaanal nag yàlla jox ko kàttan ba mu koy mën a di def di def di def ci jullit yëpp ba ñuy gis seen bopp voilà loolu laa amoon lu may wax ci soxna si. nee ko yàlla bàyyi nag ba ci kanam kanam mook boroom jëkkëram ak bépp doomu jullit ñun ñëpp ñu bokk ko te ñu koy fekkee incha allah alamin amin yaa rabbi ngay doomu chef de quartier bi nekk ci quartier bi tey ana lan ngay dénk waa cité marine Derklé lan nga leen di bàyyi loo xel ci Seyda bu Dame euh, lu mu leen di bàyyi yu may bàyyi waa ak Derklé muy mag ak ndaw parce que dafa am loo xam ne en fait dafa nit ya koy wut nit yi ñu ngi koy wut seen gox mu jafe lool kon nit ki boo amee yu mel nii koo amee ku mel nii sa gox yow da nga ci war a di tarbiwu parce que ngëneel la am na ñoo xam ne bëgg nañ ko te amuñu ko te nag mooy lu may wax rek soxna si yu muy def yëpp wallaahi dina ko gis njabootam dina ko gis te képp koo xam ne jullit nga tamit di nga ko gis parce que comme lu may wax rek social lay def maanaam waa cité bi ñoom xam nañu waa cité bi xam nañu kan mooy moom bu dee nag monsieur le maire moo ñëwoon ba toog fii ba wax li mu wax moom si Zeyda te man maa ko ko njëkk a xam kon xam nga ni moom finalement raw na ma sax li ma xam si soxna si parce que baaxaayam rek ak xadi bi toogoon fii léegi wax borom baat bu neex bi cest yooyu il faut ñu koy wax kon nag pour man soxna si si quartier ngëneel la man loolu lay dénk waa cité bi ñu mobiliser wu ñun ñëpp ñu xam ne ñun tamit am nañu fii tamit nitu yàlla voilà nitu yàlla mhm. dañ ci war a di xuus mhm. ba sori man man man plongé naa man mhm. maa ngi ci biir waaw man man damaa saa lap yenn saa yi boroom këram xaw ma may xaw a génne <laughs> xaw ma sauvé waaw macha allah macha allah papa Hamidou ñu ngi lay sant bu wér di la gërëm. man la Madiaye Boy rue 10. maa ngi dëkkoon nag Liberté 6. Mm-hmm. sama kër sa. Mm-hmm. wante comme li amul di wax rek sama xarit bi mm-hmm. pratiquement wax na lépp. parce que ñun ak Aziz dañu yàgg ak Coly ñu ànd ànd bu rafet parce que ko àndal plus de pendant léegi ñu mat trente ans wala bu ko bu ko waaw dina koy xaw jege mosul am xiiroo man mosuma dégg ñu ne problème am na man particulièrement man ak Aziz mosuma mosoo sax ma ne non wala moo xam ne réer amul mhm. Mhm. loolu loolu def na nitu diine mooy mel noonu boo fekk ñu ne nit ki ñu ngi xiiroo ñu ngi ñaayoo ñàkk gëm-gëm la mhm. wante ziir mi non macha allah parce que loolu lañ ko mën a seedal man moom particulièrement loolu laa koy seedal moo tax lépp lu mu wax fekk fekkee man dama feebar man dama feebar particulièrement mais su ma déggee ne Aziz am na dara lu xew man damay bàyyi ma dox. te damaa dox Sicap ba fii tey sama sœur bi nekk Liberté 6 gisaguma sax nii mhm. mais lii daf ma koy jaral parce lu ñu wax rek lu ne rek am na lu mu lay jaral parce que dëggu ak baax mhm. defe naa amul fay bon sunu jabar moom defe naa man mënuma sax wax parce que moom ngi lay nemmeeku mhm. mi ngi xam loo bëgg mi ngi lay bëgg lépp la lépp bëgg tey bu sañoon léppay léppay rose dara du manqué kooku kenn mënu ko fay waa cité bi waa gox bi ñëpp ñoo war a adhéré dimbali ko ci moom li mu bëgg parce que ku lay indi si yàlla ku lay ku lay defal dara di lay dimbali di dimbali sa gox di dimbali sa quartier loolu defe mooy nitu yàlla deful ngistal tey man su may jox dara mais Aziz du du xam loolu dafa ne ngistalul man loolu ma neex ci moom lu am sutura mm-hmm. am teggin wax ji man bi ma gisee dafa jug ree ñëw taxaw sama wet bàyyi ma ma toog ma mu taxaw xam mm-hmm. ay gestes yoo xam ne dafa noble ci jigéen loolu lañuy ñuy ut fi moom mu oyof mm-hmm. mu baax mu yëwén sama xool dafa fees mënu ma sa wax ma sori kontaan naa trop voilà maa ngi leen di gërëm di sant. macha allah macha allah papa yow tamit ñu ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal yàlla ndax ànd bi yàgg na dégg nañu li nga fi expliqué ak suñu papa kon yàlla na yàlla dëgëral taxawaay bi yàlla may la gudd fan may la wér bàyyi la fi ba ci kanam kanam ba njaboot gi yëpp màgg jëriñ la ci barke yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam di ko ñaanal njabootu zaahir geeg baatin gi yàlla dëgëral ànd bi bu baax a baax ci barke Baye Niass yaarab bi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax salaamaaleykum wa rahmatullah macha allah الله يا إلا الله الله إلا الله لا إله la la la

ay ba pa dab ko jërëjëf yaa ñu xamal yàlla ay papa dam na jërëjëf yaa ñu amal yàlla ay papa dam na jërëjëf yaa ñu amal yàlla illa leen ko jërëjëf yaa ñu xawal yàlla yaa Zeynabu jërëjëf yaa ñu amal yàlla wax leen ko jërëjëf yaa ñu amal yàlla yaa Zeynabu jërëjëf yaa ñu amal yàlla min ko jërëjëf yaa ñu xamal yàlla doomi papa dam na jërëjëf yaa ñu xamal yàlla min ko jërëjëf yaa ñu xamal yàlla waayu papa dam na jërëjëf yaa ñu xamal yàlla min ko jërëjëf yaa ñu xamal yàlla الله bëggee baay bilaay yaay yaa ko waral allahumma salli nañ àndandoo Ahmadu Ahmadu Ahmadu Ahmadu allah yaay ziyaare nañ la yaay mooy allah allah yaay allah allah yaay dañ lay bége yaay mooy allah allah yaay allah allah yaay dañ lay bége yaay mooy allah allah yaay allah allah day lay bége yaay mooy allah allah yaayu allah allah waayu innani qabla albaraya حب أزهر جناني بايو إنني قبل البرايا حب أزهر جناني إنني إنني قبل البرايا أقوم جناني لا إنني إنني قبل البرايا أقوم جناني إنني إنني إنني قبل البرايا أقوم جناني باي وهو أكلي وشربي وهو ديني وجيراني باي وهو مدار مرايا باي من مدار مرايا باي باي من مدار مرايا باي من مدار مرايا তাই ভাই মাই মুতা দুর্বারায় ভাই মাই মুতা বারায় ভাই আম্মা আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ ভাই আম্মা আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ ভাই আম্মা আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ

Cheikh Baay jërëjëf yaa nu baay Cheikh Baay jërëjëf yaa nu may ne baayu baay

yaay booy Cheikh Ahmadou gërëm na la yaay booy Cheikh Ahmadou gërëm na la yaay booy Cheikh Ahmadou gërëm na la yaay yaa booy Seynabou yaay la yaay ñun bëgg nañ la yaay yaay booy ñun bëgg nañ la yaay yaay booy ñun bëgg nañ la yaay yaay booy ñun bëgg nañ la yaay yaa dee ci suñu xol yi yaa dee ci suñu ruux yi billaay yaa say na boo bëgg nañu la jàmbaaru Cheikh Ahmadou ñun de yaay bëgg nañ la yaay ñun de yaay bëgg nañ la yaay ñun de yaay bëgg nañ la yaay yaay booy yaa jeex ci Cheikh Ahmadou jàmbaaru faydu bee yaay boy yaay jigéen du mën góor yaay boy yaay jigéen du mën góor yaay boy yaay jigéen du boy yaay jigéen du mën góor yaay boy yaay boy yaay jigéen du mën góor moo tax mu ne la ñun bu dee feebar nga bu dee feebar nga yaay boy ñun bu dee feebar nga yaay boy yàlla na rey ñun yaa say na

yaay yaa say na boo dem ziyaare naa la si amadu dem innaka غاز شيقي بحورك لعلوم كلا دارك جميل علماء شيخ تجاني عالم الماء قول العلوم ومن قل لن ويضيء في قلبه الأذواء شيخ تجاني شاقلا نفسه بذات مولاه ناشطا بين إبادة الأعضاء بينه ويرنو المقام مقام مقام كل فريد وبهذا تفاوت القدماء شق تجاني منسرا سنة الرسول بقلبه بعد أن قد أمات القدماء شق تجاني bayni an jaba xayra saydi suma maato laysa maran wa maratun xayda cheikhu ndijaani xaama akin jalaa u cheikhi rifatin qasda ilmi hadis niamal jalaa baa ngi tegin ti yàlla muhammad jamaata wujudan aybatan وأبصرت إلا بهجة وجمالا العالمين وذاكرا هو الحب إبراهيم قد جاء زائرا لأحمد خير العالمين وذاكرا فمن كان يلحو للمدينة زائرا سواه وإني جحت أحمد ظاهرا له مسجد الأقلى فتاه مسجده وأقطعه روض الجنان مجاورا يذكرني دهر المدى يروي يغلق وهي ذاكرة يبيت يناجي ربه ونهره يعاذرنا يهدي إلى الحق ناذرا فآذره دلدا عليه تبصرا بمكة أمرا سمي دهر دائرة وتي طيبة ذاك بدر وقندق وزاء تنزي كبدوا وقادرا فبرهام يقيم شفيعا يوم شاقا وأشقا وجوه وأبزار تراك الأخيرا وقد ساب بذات الله وقاف مؤمن وقد ولقت كل قلوبي حناجرا بعيدين وكل بريد خاذ نفسي تشاء جميع ولا تنفي هناك أكابرا ولا ملكها إلى الإله والشافع سوى المصطفى مضاربا وآخرا فمقدمته حقا هداه محمد الله وهل يتعداني السماء قادرا ونفسي وأبادي ونصري ورفقتي سفاعة والحق أبدا سرائرا ورضي الله عن شيخي واصليا ومرشدي وقد هذا يهدنا إلى ديننا سرائرا بتسليم وتحميم وحجنا وحجرتي وعاد سكرنا والمقعد غادرا عليك صلاة الله ثم السلام أتيتك مرة ثم بحرا وطائرا عليك صلاة الله ثم السلام وقيتم القرى ثم اصبحنا وطائرا بنفسه واولاده وصحبه واسرته فاقم لنا رضوانا فضلا ودائرا عليك صلاه الله ثم سلامه وال وازواج ومن كان yaa Seyda ñu ngi lay nuyu buñ la nuyoo mooy nuyu nañ kilifa jotaay bi mooy sa borom kër ab Aziz Tall ñu ngi lay nuyu di la ziar Papa Aziz di la ndokkel di la baalu xaq ci koor gi di la baal xaq di la wax ne yàlla nañu yàlla boole jëggal ñu teewee weeru koor bi at yu bëree bëri ba lépp lu ci yiw ak ngëneel te yàlla di ko wàcce si jaam ñi yàlla bu ñu si kenn ëppale ci barke yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw nuyoo boobu ñu ngi nuyu waa koñ bi yépp bu nuyoo waa koñ bi ñu ngi ciy jiital ki nga xam ne mooy suñu chef de quartier di Pa Ousmane Koli di nuyu suñu imam di nuyu nag mboolem képp képp kenn rek koo xam ne ajoo ci quartier bi dañ boot leen ñooñu muy imam ak chef de quartier di dëkkandoo yi di nuyu suñu yaay yi nga xam ne moo nekk ci kër gi mooy maire aram xusa buñ ko nuyoo nuyu nañ képp koo xam ne nii dëkkandoo la ndax yoon bi sallallahu alayhi wasallam lu am na sax ba foog na dëkkandoo dafay doon kon ñu ngi nuyu dëkkandoo yëpp nga xam ne bés bu mel nii bu xamee seen bëccëg seen guddi seen xam seen ñàkk yëpp jël nañ ko jox ko daayira Sibal Xam-Xam damañ ko joxee daayira Sibal Xam-Xam mooy jox nañ ko yaa Seyda seen bu daam kon dëkkandoo ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant di nuyu mbokku séedaa yi nga xam na ay doomi ndeyam lañ ñi ay doomi baayam jóge ñii jógee Kaolack ñii jógee Yëmbal jógee demet demet yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara wante di nuyu na monsieur le maire Cheikh nga xam ne fii la dogee nekk nit bu bu baax koo xam ne lépp loo xam ne ñeel na gox bi buñ ko yéegee bu ko rek kenn du ko fi jiitu di nuyu nag ñi nga xam ne ñii tey ñoom ñooy sikarkat yi ñu ngi leen di ñaanal yàlla mm. bu ñu waxee sikarkat yi ñu ngi ciy jiital suñu yaay Xadijatu yaay buñ ko nuyoo ñu nañ Zeraay dafay Abdou Karim demee yéen ñëpp soxna Xadi Jaw di seet ci kër gi yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal yàlla yàlla wéral baat bi yàlla kàttanal leen dëgëral leen ba lépp lu ngeen bëgg ci pays Mawlana Cheikh Ibrahim yàlla defal leen ko ci barke yonent yàlla Muhammad bàyyi bu mu waxee na faydu bi fépp fu diin lislaam egg sama faydu bi dina fi egg wante ñu leen di ñaanal yàlla fépp foo xam ne nii diin lislaam yàgg na fa faydu yàgg fa ne yàlla yàlla ngeen teg fa tànk tudd fa baati laa ilaha illallah yaa seeda seena bu daam nee na nag ngi nuyu doom ñi xam ne ñoo nekk France ñi Espagne ci ay joueurs nga xam ne dañoo xaajoo ni bokk ci kër gi nga xam ne lépp loo xam ne dañ ñu ngi ñaan yàlla yàlla ful loolu ci barke Mawlana Cheikh Ibrahim kon nuñ ko doon defee rek lañ koy defewaatee yaa Xadi Njaay Zeyda yi dafay mbokk taalibe yi dañoo toog ne amuñ lu gën a rëy lu dul siyaare sa sëriñ te siyaar moom mooy siyaada te bugguñ dara lu dul dolleeku ak yokk ndax ñun amuñ ko dul siyaar Seyda Seyna bu Daam Ibrahim tool bi fii nii métti woon na béy koo jafe woon na ci jamonoy 2006 2007 wante mu teg tànkam rek ne gisul dara lu dul jëmmal jëmi pays bi lu dul jëmmal ki nga xam ne nii moom mooy léppam muy Mawlana Cheikh Ibrahim loolu moo waral tey jotaay bi egg fii mu egg taalibe yi nag ne amul leneen lu dul ziar seen sëriñ moo tax at mu nekk ñu programmé woon ko mu dem bitim réew mu ñëw at mu nekk tamit dafay joxe ay ndogu ñu ne dañ koy dugalaale ci biir ndogu yooyu nga xam ne da koy joxe ñu jël sunu dërëm ak sunuy ñaar dërëm ak sunuy junne boolente ko jël ko jox ko yaa Yaasina bu daam Ibrahim ku joxe dërëm ak ku joxe junne ñoo yem ndax yàlla yéene le gën a fay sax ni jëf te ñëpp amoon nañ yéene def lu ëpp njortu li nga xam ne ni moom la ñu tey kon yaa seeda Yaasina bu daam mbokk taalibe ñu ngi fëddali seen kóllëre suñ diggante ak yow comme ni ko sikkarkat yi waxee yow lañ bëgg yow lañ bëgg yow lañ bëgg kon dundal wéral ndax sa dund mooy suñ njëriñ amuñ keneen ku dul yow ndax ñun Mawlana Cheikh Ibrahim rek la ñu xidmaal te Mawlana Cheikh Ibrahim moom mu ñu xidmaal yow la ñu bàyyi booleel nga nekk suñ ci bàyyi kon lépp loo xam ne nii dañ koy jëriñoo ci pays bi sa bunt rek lañ ko soxlaa soxla wuñ ko feneen amuñ leneen bëgguñ leneen yow lañ bëgg ci biir loolu nag ñu dajale woon jënd ay quelques bagages yoo xam ne nii dañoo ñëw ñaxalee ko euh, ziar bi jox ko yaa seeda seen moo tax ñu ne nañ ko joxe ko defee ku mel ni yaa booyay dafay dee na ma sànq nee na dafa am programme xaw ma boo xam ne dañ ko ba pare ne dañuy deux heures moom mooy marraine ba dafa war a dem foofu noonu waaw yaay sa sàkkoon na balaa moo dem waaw mu teewee lii looloo tax sax ñu dakk jotaay bi